onze bila bismillah ina wani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gàcce nga la ma borom daal di sant suñu ñaari waajur di sant waa Parcelles zone ba 26 di nuyu suñu père Birame Ndiaye waaw temps dafa xaw a taw a tuuti rek moo mu teew waaw mais moom lu may def rek mu ngi di ko béggee di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di nuyu waa écrit Sakko Xam-Xam di nuyu waa Parcelles rawatina fi mu dëkk waa 22 ba pare di tuuf di jégalu si dérangement bi waa koñ bi di leen jégalu waaw bu baax baax waaw xam ne nii la waroon demee ak yooyu rek yaa salaam muy loolu ñu ñëw ci combat bi wàccaay combat bi dayoo waaw wàccaay combat bi ñun ñu ngi waaj rek ba ñuy début ñu ngi def man la sama waay trois séances bi dem nañ bañ defoon deux séances instant benn séance la ñuy def waaw. pare nañ naaj comme ni ñu doon paree làmb fi weesu yëpp waaw ñaan suñu borom suturaal yi incha allah. làmb bi lan ko xaar loo xamante ne day maye ndam incha xaar ku ñëw daal di nga gis làmb du neex. incha allah parce que moom champion la ndaanaan la dañ ko koy nangul waaw parce que nit mënoo xarab ba pare bu ko daan non non da nga koy jox teer bu moom incha allah di ko ñaanal moom wér di ko ñaanal ñëpp ak ñëpp ñu nar a ñëw si làmb di ñaan yàlla suturaal ñu may ñu tam ci barke Nouré moom li mu signature est-ce que dina dina ko bëre man lu ma wax dama koy def. waaw. incha allah bët de yéen mais na lu góob bu àttan jaar ñëw li muy wax ñu bëri ñu seetaan lamb bu ma wax ci làmb dama koy def. ah ñu gis ni seen face to face bu mujj yéen ñaar da ngeen a taxaw am loola wax te yéen ñaar comme ni ko Paul waxee est ce que yéen ñaar taxaw ngeen samp jaaga yow sa diggante yàgg nga caatu ngéwél ñeme nga samp jaaga ak moom. man zëngal fuu laa du ma xalaat. jaaru ngeen wax maanaam moom jaaru ngeen li muy xeeñ doo wax nekkul si moom jaaru ngeen li ma ko sànq laay wax rek buñ ko mu jël benn jàmbaar si àdduna moom xam na moom baax man lay jël du dëb du dëb du dëb jël ji jëli keneen moom xam na moom bu baax làmb nag moo baax ay wax maanaam caatu ngéwél moom wax ji rek la am si làmb yi te man la sama waay boo nee caatu ngéwél moom war ngaa noppi bu naanul beer wàccul wax rek la am si làmb ñu gis ni. waaye day rek waaye faa réer ak ñoom doo xool. doo xool. sama gaay ak dégloo xam ngeen yàlla dana ak dégloo waaye ak dégloo. waaw ngor bu yaru. waaw tey ñun gëj nañ ci kon bu bàyyee ñëpp woo ñu ñëw dañuy joxante cër ñu dégloo ndax olof yaa police bu la fekkee la bëgg. jërëjëf te bu nekk soo demee war nga a yóbbu. wala nga li nga dégg a la ñuy ne leen ñu naan Bamba dañoo yar ñun ba ñu amul yar. waaw te dóoru ñoo yar ñun ñoo sàmm Bamba dañu taxoon journaliste yi ak waa affaire bi. waaw nañu yaru rek coori jub. waaw loolu mooy Anaconda ñu gis ni si bis bi ngeen di biyee mu am dayo boo xamante ne yaakaar naa ne bis dafa àgg ndax yaakaar ne ñaari ndaanaan a koy bëri ba pare bari na si ndaw la ay seen i yoo xamante ni ay ndaanaan yu siy bëree est-ce que bis boobu yéen yéen koy bàyyi xel bu baax waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ku fekkoon suñu séance entraînement ak koo xamante ne man sax danoon entraînement boobu di profité di sant grand max bu baax bu libéré kat jël xaalis bu bëri yàq suñu ñii tamit toog fii bàyyi seen temps man a sama waay xam nga di sonn si bés bi am na lu ma jaral moo tax mu demee noonu boobu tay waaw te bu jour waa incha allah yi nga xam ne bés bi am jaral na ma te am na fu ma teg sama bët fu dul caatu ngéwél waaw looy wax caatu ngéwél caatu ngéwél di ko wax moom maanaam non li mu mel nii nii coori jub quoi naa nangul parce que moom mooy caatu ngéwél lamb ji rëy na torop mais wax rek la si am te bu bés bu arbitre siffle na xam ne wax la am ci lamb ji incha allah. Thiat dafa dugg ci kaaraaku sàmm la ko. waaw fa la dugg <laughs> di ko wax ñu nekk si ginnaaw moom di ko dooleel. li nga wax jooy nax kuy jooy. waaw ñooñu ne si ginnaawam. loolu mooy lan maanaam loolu mooy lan. moom xam na bu baax. waaw lan di ko doole si combat bi. Ah. kuy jooy du nax kuy jooy. maanaam teg ko tekkil ko mbokk internet yi lay seetaan. waaw maanaam moom daa am ñu ko topp ne si di ko dooleel ñoo xamante ne ñoom fi ñu faussé ne sax baaxul ñoom bay tegaat si piste waaw. comme ñan comme ñan. moo aajowul wax pour kenn fii nii man la sama waaw. waaw dañuy jax ba sonn. Euh, ñaar ngeen daam loo xam ni yéen a yéen ñaar a ko tolloo. yaakaar naa ku ci nekk am nga onze combats huit victoire ak trois défaites ba pare ku ci nekk booy dakaar daan la. su ma déggee kuy jooy mënta nax kuy jooy yaakaar naa yéen ñaar bu ci nekk la la booy Dakar defoon da laa métti moo tax ngay waxee foofu. kuy jooy lu nax kuy jooy yaakaar naa man victoire la ay jooy lu nax jooy loolu ah, kon amaana moom moo moom mais du man foofu aw ma fa wàll waaw. loolu moom moo ko moom moo jóge ci ay jooy. pël balaa ngaa woote bis bi le 6 yaakaar naa ne xale yi si bëri yëpp li bootu seen ginnaaw daa bëri côté mobilisation foos toll. côté mobilisation ñu yow fii yow maanaam xanaa doo xool bi waaw. maa wootal. waaw comme ni nga ko waxee rek maanaam maanaam di woo autorités yi nekk fii parcelle. Jamil Jamil première parce que moom mooy suñu maire quoi maire bi fi jógee mu ngi ci doon jàpp. moom suñu premier combat bi daaw ak deuxième bi dañ ko ko baal parce que mu ngi a teew dañ ko doon bismillah dal jàmm bàyyi ko mu ceene mais sant dal na jàmm na wax ak bi na wax ak ñun parcelle lañ am deretu waaw ay deretu parcelle lañ maanaam dara boobu parcelle la mana sa waaw na si jàpp ñun mënuñoo feneen di woowi keneen moom jamil na waaw na si nañu dooleel waaw di woo grand max bu libéré kat bu baax a baax a baax a baax parce que bàyyi bu dem mbooloo ñun am nañ jox leen lu ñu moom ñu delloo ma ko kese kese moo xam